xool Feeling suñu mbokk internetu ak euh, Feeling Dakar TV comme ni nga koy defee à chaque fois rek euh, tey nag ñuy dalal je pense yi ki nga xamante ni nii yàgg ngeen ko gis ci euh, TikTok bi mu nekk bégayeuse àdduna bi bari nag dima ko laaj ne lan moo tax waruñu ko mën a andi fi nga xamante ni moom mooy Feeling Dakar ci plateau bi ah, donc euh, invité ko looloo waral tey ah, ñu invité ko fas yéene waxtaan ak moom lu bari ci li nga xamante ne ni jëm na ci wàllu liggéeyam yu demee noonu ah, balaa boobu dama koy jox mu nuyoog mbokk internet Feeling Dakar TV yi ñuy seetaan après ñu di ko moom ci waxtaan bi dégg yees maa leen di di la ziar bu baax a baax. Euh, voilà Abdou maa lay fay bu baax tamit di am. contentement si eh, invitation bi di nuyu tamit képp koo xam ne eh, yaa ngi seetaan Feeling Dakar tamit mm, maa ngi lay nuyu bu baax a baax ñi nga xam suivre ñoo ngi may suivre tamit di di ma ah, encouragé mm-hmm. suñu waa kë kër rek oh, Omar Ndiaye Omar Ndiaye ak papa papa la tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. Mm-hmm. merci beaucoup d' accord mais li sénégalais yi di wax naan yow nii ngay nii ngay waxee naturellement. dafa mel ni yow ni ngay waxee nekkul mooy comme booy def TikTok ni ngay dëree dafa mel ni li dafa nekk ci yow quoi. ba bi man man moo tax nit ñi bu ñu naan boo xam di dërë de dem naa leen man dama dama muuma. waaw ah, <laughs> bu ñuy wax da ngaa da ngaa da <laughs> ah, ngaa loolu laa def parce que en fait. Mhm. leen bëgg a firndeel ni man. Mhm. nekkul loo xam ne damay def wàllum comédie. Mhm. mais loo xam dafa nekk si man loolu nekk si man la mhm. ma bëgg koo wan tey Sénégal yi mhm. te bëgg ko wan tamit ñi nga xam ne dañoo dërteeku li ne man mel man mhm. voilà d'accord à chaque fois bu ñu gisee say vidéo donc dégg li lay wax est-ce que doo dem uti beneen liggéey loolu boo koy dégg naka la lay def waaw non def na benn affaire Mm. en fait dèjà rek man mënumaa romb si mbedd mi. Mm-hmm. li nga xam moom lañ ma li ko wax lool la dama uti liggéey. Mm-hmm. dem naa ba léegi nis naa parce que ki nga xam ne loo ma ko xool mooy. bi ma ànd yi. Mm-hmm. maa ngi koy nuyu kooku sama loom la macha allah macha allah. Ah, moo moo ne dem uti liggéey. moo tax ba tax vidéo bu ma defee dama si moom monté monté waale le de liggéey. nga bañ. li dem na boo mu nekk si man loolu kon li ma war ragalu ma te tiit ma parce que avant ma def si vidéo yi mhm. dama doon la rencontré ay choses yoo xam ñoo ñi gënoon ñoo gënoon a garaaw lii nii ko lii nii moo tax ko loolu noonu nekkul problème si li man d'accord des fois rek du yàq damay ree mhm. parce que même yow say vidéo booy laaj ni question day ah. ree ah. kon boo xawee <laughs> du xaw a yàgg mhm. comme ni ko euh, sa waa ji di waxee rek xam naa moom tey temps bi Ousmane dañ koy gën a yokk peut ngeen comprendre ko <laughs> euh, wax ji moom moo xaaw euh, demee noonu mais tey <laughs> nga am gëm-gëm boobu mhm. comprendre nga gëm sa bopp di def ay vidéo ci TikTok bi mhm. ba ñu bari tey jii ni xàmmee la ci mhm. euh, donc avant ngay ñëw suñu chauffeur bi mu ngi nii daf ma ni xam na la da lay siibu di la topp lu bari bari tey bañ doon wax tey initiative lan moo ko waral te lan nga ñuy wax ba tey jii Euh, ku gis sa vidéo rek day dem xool mhm. jëm la découvrir tey ba ñu doon wax tey sa jaar-jaar ak tamit lan moo waral di mhm. euh, tax nga jékki-jékki ak mhm. ni nga dëree nga jékki-jékki ne xaaral ma imposé sama bopp génne di nga xamante ni moom moo nekk ci man ok man déjà damay commencer ci turu déggee news bi déjà ah, nag ah, Abdou nag bu ma dee wax nag nga <laughs> naa ma tey li li li yàlla kon seconde <laughs> du ma ku ku coupé. <laughs> ah, ah non xoolal boo amee say vidéo ñu ah. lay ñu lay filmer ah. bu la neexee dañuy coupé mais da nga ñëw ba suñu plateau. dooñu wax ñu coupé wala yaay coupé da jox si sama temps wax moom loolu la wax de. d'accord wax ah voilà. mu noonu léegi surtout turu bi bi bégees bégees déjà bégees mooy jigéen bu. bu dër njëkk am osé hmm. ma ne ma di dëgg dama dëgg pourquoi pas du parce que boobu fekk na dugg naa si. aar bi tout ko naa indi beneen tuus daal di koy daal mu nekk sama tuusu bopp tuus boo xam ne mu li li su hmm. xam ne laa si li li xoolee hmm. jigéen bu dër en français mu nekk bégayees ma tuddee ko sama bopp amoon na nag amoon na ay kii critique lu tax nga tudd mu la am jaar maam jaar yu tuddee sama bopp bégayees mais dama ni bégayees yu turu aar bi la mhm. bu bu aar bi jeexee li laam lam jaar la mam jaar la mhm. mais loolu na lii di gën tax ma mhm. dugg si dossier peuple liggéeyal bi pour tey ñi nga xam ne dañoo dër comme man tey dèjà man man ba ma amee confiance am bopp yi liiwul yàggul parce que école da dañoo jàngal développement personnel te boo xoolee si biir développement personnel hmm. dafa am benn partie boo xam ñu ngi koy lu dee tuddee la confiance en la confiance en bu ma retaan waay ngi defaay la confiance en te nangoo ku la dimbali ma moo xam ne li wax danga dama eggali non ah, non non <laughs> moo xam ne li wax dama eggali la confiance en am dama indi am dama mu fekk. dama rek waaw yow am nga temps. comme ça la confiance en la confiance en. non am dama pardon la am dama indi sa photo pour humilier ma am. non du cadre humilier. waaw am boo xamee moom bàyyi mu dem. voilà la confiance am la confiance maanaam nga am. gëm-gëm si la la bopp léegi tey loolu noonu tey euh, parti boobu noonu ba ma koy étudier ma ne pourquoi pas man sama dër yi ma daa oh, si fier voilà merci beaucoup li ma ma maa xam ni kat ni ma kat en nekkul lool loo xam ne benn atu la mais loo xam ne tey sama la sama ku pouvoir la mhm. te sama pouvoir bi tey bu ko amante bu ma ko exploité mën na ma am leen indi loolu ma lim ba tey ba tey di macha allah mi sant yàlla maa ngi ci sant yàlla bu baax mhm. mais tamit pour tey ñi nga xam te dañoo tër te amuñu confiance seen leen mhm. bopp seen bopp parce que tey ah, ñoom ñëpp muy mën a keneen keneen tey képp koo xam grandeur da ngay am comp pressé pour pour wax mhm. parce que boo lay wax day am ay ay kaw ñoo xam ne dañ lay kii ci ci liggéey tige mhm. ñii ñu ngi lay reetaan mhm. ma ne kon pourquoi pas man en tant que man maa ngi li aat bi te en déjà boo nekkee li aat bi si aat bi yow waroo am da looy ragal comme ma ne kon ma maa ngi doon la première personne pas aussi Sénégal pas en Afrique mais si inton international mhm. te voilà félicitation félicitation la moi à moi voilà a bi noonu la demee. d' accord euh, mu nekk comme ngeen ko euh, xamee mu nekk BGS te dégg nga lu wax ne looloo waral muy def vidéo yooyu cela veut dire que moom dafa dër ni muy waxee yéen ñëpp ñu seetaan xam ngeen ne moom noonu lay waxee mais gëm-gëm moom moom moo tax mu ne. moom tey dina wane boppam que ni boo dëree mën nga nekk leneen moom moo tax mu imposé boppam ba tey euh, nu mu ko expliqué moom dafa dër man maa indi bëgg a wax lu mu wax euh, nee na moo looloo tax tey ba adduna bi yëpp rek ràññeeku ko ci li nga xamante ne mu ngi koy def mais des fois doo dégg ay retour maanaam tey jii euh, nga toog comme ni ma la wax sànq léegi est-ce que doo bàyyi métier bi dem liggéey leneen mm. des fois tamit ci yan ngay gën a jot à chaque fois boo defee sa vidéo wax wax dëgg yàlla parce que fii àdduna mhm. euh, critique lañ koy fekk te képp ko xam ni tey di jug naa jug tey bëgg te àdduna bi yëpp li xam mhm. da ngay di am ay critique mais bu dëgg dee dëgg mhm. pour le moment boobu man nag critique incha allah dina lii bu incha allah buñ ñëwee man di dégg naa dinaa dinaa li pare naa pare pour recevoir mais pour le moment. Mhm. bu dëgg dee dëgg. Mhm. amaguma ki ki wax dëgg parce que ñi nga xam ne mooy woo tout le temps. dañ may encouragé di wax de man di jooy sax di wax dama jooy. wallahi azim benn jour am na benn oustaz euh, bu nekk fee kër Massar. Mhm. benn dafa yor benn. internat alxuraan alxuraan la fa yor mhm. mais day wax di ñaan di ñaan du boobu maa ko sama sama manager sama manager bi lu man yaay man yaay ñu toog ñoo toog man na ma sa seede mhm. mu ne ma xool maa ngi ne bëgg a lii bëgg a wér wér mais mhm. topp say vidéo yow yi ni na yàlla fay ni yàlla na yàlla fay di ñaan am tamit benn koo xam ne non koo xam mu dëkk ba Casamance kooku tamit la même ak ki dëkk Touba Serigne Moustapha monté la même chose nee na que dafa dafa bëgg a julli mais dafa dugg ci toog daay tombé seen vidéo mais nee na day day reetaan ba moom day fàtt daa fàttoon sa daaw de julli en fait yooyu nekk ay ay retour yoo xam ni daf may daf may lii daf may gën a waaw voilà day tax ma ma gën a nekk. nga baal ma nag fi ma temps amul temps amul na bon bon waaye émission bi de <laughs> di yokku da yokku voilà mu ngi noonu <laughs> ah. léegi ne bëggoon nga may eh, lagali sa eh, eggali mu ngi noonu mais euh, surtout moo tamit waaye diaspora bi ku su ni am ko xam mu ngi tudd Modou Modou Yacine Diop Diop kooku tamit non <laughs> en ñun ñëpp ak ñoom Serigne Ibra ñoom Serigne Ibra waa ca jafaraab tey mën naa wax samay contacté ñu nekk tey sérieux surtout ma waa Espagne waa Espagne ñu ëpp ñoo ñoo supporté d' accord mais comme ni nga ko waxee euh, bi ngay doog a débuté mhm. yaakaaroon ni tey di nga yegg fii mhm. amaana tey boo demee Euh, comme ni nga koy waxee ni nit di la woo di la bëgg bay tuur xéwal ci ay mm-hmm. kilifa mm-hmm. est-ce que amoon nga yaakaar que ni yow bi ngay dugg ci euh, ci li nga xamante ne nii yaa ngi ci nekk àdduna xam na ci mm-hmm. est-ce nga ni loolu di ko nga ko ci am maanaam bi nga xamante ni suñu borom may la ko est-ce que amoon nga yaakaar que ni tey àdduna dina toll fenn foo xamante ni fu ñu tudd sa tur dañuy xam ni yow la waaw bu dëgg bu dëgg dee dëgg nag en fait gën a tax sax ma dugg si mooy dama toog benn la temps boo xam yow sama may na ko wax temps boo xam ni ma dama ma awma fenn fu ma dem pour liggéey parce que man sama liggéey mooy wàllum maa ngi si audiovisuel audiovisuel bi mais temps bi toog toog si ma ne il faut ma am li def ma def si la contacté sama benn waaye bu tudd Moussa tamit ànd ak laas maas essai amis mhm. te ñoom laa war a njëkk a remercier bala maa remercier kenn mu ne dama di ànd ak ñoom. Mm-hmm. mas essayé examen ñu ngi ñaar mais accueillir accueillir avant boobu ay ay gaañ nañ ko mais bu wàllum vidéo ñaar mi accueillir. Mm-hmm. léegi man dafa ñoom vidéo mooy bay dama yàlla baal si moo bi mooy am na fee benn koo xam ni. Euh, mm-hmm. góor góor mais te mu amoon problème fee fee. Kaolack mhm. mooy tax waa Kaolack daal koy jël daal koy taal waaw ba mu ñaari tur yi kooku la laa njëkk a def vidéo mhm. vidéo bi def boum après mais ma ne ba ma sa xel mhm. ma defaatu ay masse tamit di di ko def di ko def muy muy dem muy dem mais dama ne ba benn mois amatuma temps bi si laa ko maa liggéey liggéeyat amatuma temps pour dem def vidéo benn jour daal ma dem fee yoof am kii ki ma wax mooy page bi ànd ñu ñu fa amoon tournage mu hmm. woo ma ne ma kaay dafa ma ma vidéo ba hmm. ma ne ko kaay mu def benn hmm. bu def la laa def mooy bi ma naan ko Sénégal Sénégal prochain prochain voilà moom tamit mooy eggali vidéo moo nekk sama première vidéo te tamit si 2024 24 bi 24 bi def la la ko def ma def ko moom vidéo bi def boobu ma ne wax ma essayé waat beneen ma dugal mu demaat ah xaaral essayé ma mu dem ma gis ni nit ñaa ngi koy ko ñuy bëgg heure moo dugalee en fait nit ñi yàq nañu yàqam sama mi muy dugal nit ñi da ngay woon naa woon del dugal del dugal di ma félicité laa ne voilà kon yëg nit ñi bëgg nañ ko mhm. kon voilà ni eggale kon na naa koy eggale mhm. d' accord euh, dafa mel tamit aussi man duma la ko nëbb mhm. yàlla xam na lu may wax mhm. euh, sama bàjjan mhm. bi nga xamante ne moo nekk kër ga daf lay suivre dem rek maa ngi naan ko war naa am ak moom émission mais nit ñi da lay apprécier bu baax a baax quoi tey boo amoon tey message boo xamante ni da ngay jàllale ci loolu comme ça ñi la bëgg tey euh, lan nga leen mën a wax parce que à chaque fois boo defee vidéo ñoom ñoo lay di la di la di la suivre di la partager di def yu nekk yi nga xamante ne ni tey bëgg nañ nga te mm-hmm. tey boo amoon message boo leen di jàllale mm-hmm. ci ñoom tey lan nga leen di wax sa fans yi nga xamante ni bëgg fait liy naan liy naan liy naan li euh, bëgg li leen koy fay yéen koy fay mm-hmm. ma ñoom mën naa li ñu bëgg lenn bëgg naa ko li raw bëgg naa lu ko raw parce que man dèjà ma dem bëkki dem waaw maa am sama benn commande benn xam jën mu ne mu ne mais laa bëgg pourquoi foofa romb am ku taxaw di wax yow nga commencé di su di reetaan di mel ni ku xam koo xam ay at ay at am ko xam ne ma laaj sa sama ni ma nu tudd nu tudd ma mm-hmm. wax ko ma maam jaara mu toog nga ko maam jaara nga tudd ndax nangam nangam parce que foofu rek boo wax la ñu ñoom ñi xam ñu ngi jël seen temps seen temps di ma suivre mu ñëw boo ma xamee si mbedd mi ni ñu may accueillir comme man tamit mm-hmm. noonu laa mm-hmm. wa war a accueillir mm-hmm. te tamit dina wax ñëpp nag merci beaucoup ñi nga xam ñoo ngi partagé ñi nga xam ñu ngi woo di commenter ñoom ñëpp nag ak ñu may si mbedd mi ñu may remercier ñoom ñëpp merci beaucoup mais tamit di leen gën a laax tamit ñu gën maa jàppale ma ñu bañ li ñu ma bàyyi liggéey bi gën maa jàppale si liggéey bi xam ne moom laa bëgg te moom laa bëgg te mooy tey di di nga di nga bëgg tey looy mm-hmm. filmer mm-hmm. tey di nga bëgg tey caméra caméra wala nga bëgg tey di di ko micro wala bëgg tey portable dèjà man am portable portable mooy la nga mm, loolu du yoon mm-hmm. kon ginnaaw bu mu leen remercier ba pare nag képp ku si am lu baax looy defal looy defalaate man laa bëggee seen flanc man yite woon naa ko xew ma xew ma nag dara nag voilà te nag ngeen bàyyi ma lii liggéey bi nag. Mhm. waaw liggéey moom bàyyi mun ma ko bàyyi moom. d'accord yaakaar naa loolu am na solo bu baax a baax di wax. Uh, man ñi nga xamante ne nii ay samay maman lañ yu nekk extérieur ku ci mel ni Awa Mboup euh, ak ki nga xamante ne moom mooy uh, Ami Ndiaye euh, bu woon koo gisee comme lu mu wax nee na ndaw la am li nga xamante ni moom mooy euh, avenir bëgg li nga xamante ni ko jàppale man xam naa yéen laa koy bàyyee je pense que après di ngeen déggante moom euh, ak képp ki nga xamante ne nii euh, bëgg na ko jàppale ci wàllu liggéeyam parce que wax na dëgg boo nekkee ci ci ci li nga xamante ni ba mooy benn liggéey ñu bari naan est-ce que doo bàyyi liggéey moom mu am gëm-gëm ne ci lii laay lii ci laay nekk ba keroog ya yàlla di def leneen kon je pense que ni yaayoo nag nga xamante ni war nañ ko mën a jàppale bu baax a baax a baax mais Bécaye sa famille naka la ñuy dundee di nga xamante ni moom mooy succès bi comme yaa ngi koy wax léegi foo romb nit ñi euh, di la di di la apprécier yu demee noonu sa yaay aussi nag nag moom naka lay dundee succès bi nga xamante ni nii euh, nit ñi xamee nañ la fu nekk. Eh, man euh, déjà damay damay nuyu suñu waa kër di nuyu sama mag bi seen lay na bu seen mbay. Mm-hmm. di nuyu tey ami collège judo parce que ñoom ñaar tey ñu ma ba tey ma nekk si aar bi si aar bi ba tey ñu wax tey li bëggees tey la bëggees kon ñoom ñaar tey la da ci ngaalaam ak gaa ci ngaalaam mais retour bi nga xam ni moom laa si am ak ñoom bu bu bu bu bu di dëgg bu dëgg de dee dëgg ñoom en fait dinañ si am nañ si contentement trop parce que déjà sama mag bi des fois may jox ay conseils booy poser sa question de ko defee ñi ak mhm. ñi mais côté parent yi mooy xaw a doon sama problème problème que man ne nekkuma samay parents tu vois sama lanta la nekkal mais di remercier ñu ñëpp nag di leen remercier nañ ñëpp am nañ ci contentement te mhm. à chaque fois ñu ngi may encouragé encouragé di wax di wax ni fi aw fi aw surtout sama doom mag yi muy tudd te ma ji ji ma ci jigéen ma jigéen lu lom hmm. Seydi Bilia Ndiaye Bira Ndiaye moom tamit moo gën a ëpp sax lu may conseil conseil bu baax a baax a baax même te te suba rek génn ba ba muy génn dama am ak benn benn émission bu muy def may def na maa conseil gën na maa joxe mooy yoo xam ay mooy yoo xam voilà moom ak Ndeye Fatou Ndeye Fatou ngi nuyu bu baax a baax a baax mm-hmm. côté parent bi daal voilà foofu daal voilà foofu moo xaaw kii tuuti quoi non en fait nekk ma sa parent d'accord tout à fait maanaam buujumaan bi. Mhm. foofu moom ba ngay yokk dër bi nañu waxante dëgg dër nga mais dañ ko yokk de. Oh. en fait kii euh, Abdou. waaw déjà yaa ngi gis sànq maa ngi wax la confiance. waaw la confiance en subi en peut-être mën naa wax moom bi. d'accord xaw ma xaw ma sa li sam problème li sam problème. Mhm. en fait du nekkul lu ma yokk parce que mhm. vidéo TikTok. lu bon lu bon deux minutes la war a yam deux minutes la war yam wala une minute mhm. dèjà man sama seen vidéo mun mun teet limité wu une minute mhm. parce que man nit ñi li li li ñu war a wax une minute man mhm. maa nga wax si deux minutes jàpp trois minutes trois minutes mu ngi noonu nag léegi nag pour nag may bëgg seen vidéo gaaw bu gaaw moo tax man ni may xam ne boo gis danga wax gi gaaw ma gaaw ni ma koy gaawlee nag moo tax may voilà sama kër bi yokku léegi nii dina yaakaar na maa ko yokku. nga ne ko bu bu bu bu bu bu bu bu ma. <laughs> non vidéo boobu dafa nekk li nga xamante ne man ba tey nii euh, euh, daf may daf may daf may dama koy seetaan lu bare bare bare. Mhm. Euh, nekkul ne li ñu toog moom moo tax. mais man aussi dama lay bàyyi xel bu mhm. baax a baax a baax. Mhm, mais à part liggéey bi ngay def. est-ce que yaa ngi ci am ay jàppale. maanaam ñoo xamante ni ñi tey jii dina mën a jàppale li nga bëgg a def parce que maa ngi gis ngay jaay ay café yu demee noonu mm-hmm. tey aussi tey bañ doon expliqué ci loolu ba xam mm-hmm. am nga ñu lay jàppale mm-hmm. ba xam yaa ngi jot ay publicité yu demee noonu pour mën a euh, maanaam lépp li nga xamante ni bëgg nga ko gérer nga gérer ko aussi sa bopp waaw bu dee côté jàppale moom bu dëgg dëgg moom jàppale bi ñëwagul de ñëwagul ñëwul gars yi dañuy xool partagé. waaw waaw mais jàppale moom ñëwul. xanaa kii ki nga xam ne mooy kii jaay lekk café sama benn tonton mm-hmm. moo ma jox café gi moom ma ma ma koy ma koy jaayal léegi man moo ko dee jaayal. Mm-hmm. ma daa am benn wéccet. wéccet tout à fait comprendre mu ngi noonu ak ak man sama lii bi sama marque boo boo seetlu dama dama xaw ma yaa ngi bàyyi xel. dama solo loolu tamit man maa koy lii maa ko def comme tey beneen marque boo xam ni dama bëgg tey. Mm. daa ci si investir. di ko lii di di ko lii di ko lii di jaay di ko jaay à mm. part loolu ak. kafe gi may di laay mm-hmm. ak milieu audiovisuel bi ma nekk mm-hmm. voilà nekkatuma si beneen bi d' accord yaakaar naa loolu am na solo bu baax a baax yéen a ko bëggoon di ko laajte moom moo tax ma ni euh, dinaa def lu euh, de tout rek pour euh, invité ko fi nga xamante moom mooy Feeling Dakar TV yaakaar naa ni tamit aussi xam xàmmee ngeen ko miin ngeen ko bu baax a baax a baax di wax ngeen jàppale ko parce que ndaw la bu nekk ci yoon am gëm-gëm comprendre nga bëgg ci li nga xamante ne nii ci la nekk suñu borom ubbil ko ci xewal kon yéen ngeen ko mën a jàppale di leen wax ni képp rek nga xamante ne nii yaa ngi suivre émission. population bi rek lépp rek loo ko mën a jàppale ci wàllu maanaam liggéeyam nga jàppale ko donc tamit euh, Bécaye mm. est-ce que xam nga ni yow ku dëgër fit nga. yow lool loolu nga wax lànk yi man dëg dëgër fit leesuwul man ma may taxaw devant les caméras mm-hmm. naan ne wax na wax loolu dëgër fit lu tax mu wax la ko uh-huh. dama gis sa benn vidéo mm-hmm. Bécaye dañuy wax dëgg dañuy wax wax dëgg fa yàlla nga ne dangay live ah, waaw est-ce sa live ko amul temps di taxaw di ko kii yow bala yaa ngi koy wax dañ wax deux minutes nga dem mm-hmm. yow mun nga jël dix minutes mm-hmm. waaw léegi nga bëgg a live mm-hmm. d'accord waaw est-ce xam nga ni bu amoon portable tey tey tey tey. la dama dama laaj portable yi day seetaan je pense que. lool bu amoon portable tey tey di live dama live ndax maa ngi si commentaire yi mhm. li ngi naan ngir yàlla ñoo la ko ñaan bu live amuñu temps <laughs> ñii naan ma ngir yàlla booy live na nekk si koor si yi nga xam ne dañ mën a lakkaale dakkaale ko koor commentaire bu nekk ji jot maa nga jot mais portable bu baax laay xaar ko app live ñu xam dañuy xam ni maa leen gën a dëgër fit fuuf d'accord mi ngi noonu je pense que ne après numéro bi nañ ko nañ ko def noonu ci suuf képp rek ki nga xamante ni dégg ngeen lu mu wax nit ki nga xamante ne à chaque fois Euh, boo amee euh, stress moom ci moom ngay dem seetaan ko kon je ni comme ni ko waxee bëgg na téléphone bi muy laajfee bëgg na téléphone aussi tamit bi nga xamante ni moom lay liggéeyee numéro bi nañ ko affiché ci suuf képp rek nga xamante nii euh, gis nga ko rek bëgg ko jàppale ci liggéeyam rek mu ngi noonu numéro am après nañ ko affiché ci ci ci li nga xamante ni moom mooy émission bi amoon nañ mbégte di la dal mm-hmm. je pense que àdduna nii la da ngay gis koo xamante ni nii mi ngi nekk ci yoon bu baax nga invité ko pour mm-hmm. àdduna mun ko xam mm-hmm. donc je pense ni mm-hmm. incha bu émission bi dawee man je pense que dina am ñu bari ñoo xamante ni dañ euh, la da ngay mën a dem ñu invité la comprendre nga gën a mën a wane li xamante ni moom mooy sa talent ak sa gëm-gëm di la wax que ni amoon naa mbégte vraiment di dalal fii ci Feeling Dakar TV euh, boo am benn rek am naa ko di liis parce que li nga xam ne li nga xam ne météo moom moom météo moom laa toog fi wax ko te yow yow yi di li yaam invité mm-hmm. te même bu dara du dara ah, avant déggee yow njëkk yaa am njëkk invité temps yi mi daan joué joué ay théâtre mhm. yaa am njëkk invité mhm. kon te moo tax démb ba nga wax mën naa la yow amul droit sax di ma di ma invité dama dama may woowee naa ma lay bëggee laa laa bëggee jour sànq jour sànq ñëw ñëwoon ni ñëw ma ñëw ma yoon mhm. moo yoon mais en tout cas tamit di am tamit euh, contentement rek mooy li nga xam moom laa lay wax di am tamit contentement tamit si télé bi maa ngi li bi maa ngi liggéey bi liggéey bi macha allah mu ngi laar yoon mu ngi jajaar yoon mais tamit du ma dem sans tamit nuyu moo nuyu tamit ku si mu nuyu ma neex ma ni Lomar tamit tey moo duggee si milieu audiovisuel bi loom la moom la tey moom ma ne demee bay man la la ladrage cadrage ak ay montage mën naa wax sax kii la kii Aliou Samb mm. la mais moom moo nekkoon après après Aliou Samb moom Aliou Samb bu ma saan dem mm. moom moom muy nekk ma fa nekk bu ma saan dem ay tournage mm-hmm. moom day yëkkati caméra caméra nee ma li am mm-hmm. buggul ma ma toog ma toog tey nu tey moom la mm-hmm. moo tax sama lépp moom la tamit di ko jaajëf bu baax a baax a baax ah, di jaajëf tamit ki nga xam te moo tax tey ñëpp xam tey laa déggee à part Macky Sall mooy papal papal ku wax mooy papa laay nga bëgg a wax. papa laccu. laccu waaw maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax ndeysaan fépp fu ma ko woo fépp fu ma ko woo day ñëw day ñëw. tey bu ñu nee laa bëgg tey voilà moom la nuyu tam suñu waa kër. lay mhm. lay faatu nday faatu ah, sama séeréer boobu maa ngi lay nuyu di la jaajëfal ma jigéen séeri Bira Ndiaye seen mbay ak sama yaay tamit sama mhm. yàlla may ko fan bu gudd bu wër a wër a am collège Diop yéen ñëpp maa ngi leen nuyu dina leen merci beaucoup ok euh, jërë ngeen jëf suñu mbokk internetu ak Feeling Dakar TV nee naa la mbégte la vraiment euh, ñu teg ko ci plateau bi waxtaan ak moom donc également yéen ñi nga xamante ni yéen ma doon ko laaj di ma wax que ni euh, dañoo bëgg a xam moom ba xam dafa dër walla ci li nga xamante ni moom lay def moom moo waral muy defee noonu mais ko seetaan xam ni moom ñi la mel dégg nga lu wax nee na gëm boppam ak ña euh, bañ a ci digg nit ñi ah, looloo tax moom mu imposé boppam dem di euh, wane li nga xamante ni moom moo nekk ci moom loolu yaakaar naa ne aussi gëm-gëm moom moo koy def di ko ñaanal suñu borom lépp li nga xamante ni nii bëgg na ko ci carrière am nag suñu borom defal ko ko ci barke Seydina Muhammad ah, di jaajëfal ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon ménagère am ak suñu waajee toog euh, di leen jox dig dajee ak keneen incha allah jaay ngeen jëf